Elhadji Ousseynou Ndiaye dal leen jàmm ci xibaar yéen kaay yi nga xam ne rek moom la ñu xëyandoo coronavirus bi kay nekk nii nga xam ne rek noonu la sonale eh, doomu réew yi nga xam ne rek ñoo nekkee ci réewum réew Sénégal yi nga bi laati bi yéen kaay kay ñoo ñee sonal na eh, ji nag li nga xam ne rek jot nañoo faatu ci ay yoo xam ne rek ña nga nekkee ci biti réew toll nañ ci téeméer ak fukk ak benn yéen kaay gi duñu xam ne ñoo xam ne kay jamono ji jot na leen yóbbu yóbbu foofee ci biti réew waaye nag réewum Sénégal jamono ji ma ngay jax-jaxi ndax jàngoroy covid gi ak yoonam goo xam ne rek topp na ko sonal ñi nga xam ne rek ñoo fi yeewoo vox populi du ñu xamal ne kay ñaar fukk ak juróom ne rek jot nañoo ñàkk seen bakkan ci covid 19 gi ci réewum Sénégal yéene ne nga xam ne rek moo mujjee faatu génn ak soxna la ma nga dëkkoon ca jàmm gay ma kaay bi du ñu lépp loo xam ne rek jëm na ca jàngoro joojee jamono ji nag donte kaay yi nga xam ne rek am nañ ko ci réewum Sénégal bari na lool critique yéene kaay du ñu xamal bu dee Dakar kay jamono ji ñoo jël jongati maanaam daal ñii nga xam ne rek jot nañu koo amee ci jàngoro covid 19 ji maanaam daal ñii nga xam ne rek jot nañoo ko amee ci ñi amee jàngoro covid 19 ji Dakar jël na la nga xam ne moo ci gën a rëy suñu bërëbu fajukaay jamono ji kay ñoo nekk ci alerte rouge docteur Chef Simon di xam le ne lépp xam ne rek jëm na ci pic bii nga xam ne rek moom la wax ci réewum Sénégal maanaam daal lim bii nga xam ne rek bu ñu fa yeggee mbir ya mën diñu xamal ne laataa ñu koy xaar réewum Sénégal koy jamono ji am na juróom-ñetti ñoo xam ne sonn nañ lool ña nga tëdd ñu leen di may ñuy noy tey nag jàngoroy covid 19 gi moo leen tëral surso ay yéene kaay diñu xamal ne joojale jàngoro koy tax na kay réewum Sénégal jamono ji koy jaxan na ma dëgg la ñuy dund ndax jàngoro jeeg muy yokkoo ci mim réew yéene bi di libération diñu xamal ne ak lu mel ni xew daal jamono ji donte nag jàngoro ja ma nga yokk ci mim réew am na ci yeneen ñoo xam ne bokk na li nga xam ne jàpp nañ ne moo yokk yéene kaay ne donte nag li nga xam ne moo di transport interurbain waaye terewul ñaawteef yoo xam ne ba léegi ña ngay bëtt bare gi di xam ne donte nag am na ñoo xam ne rek tañ nañ leen ci loxo waaye nag këyit googee nga xam ne rek moom kay gisul lenn loo xam ne jur na ko waaye tamit maanaam daal garawal gi nga xam ne maanaam daal aj geeg yokk gi nga xam ne dana koy yokk am na ci loo xam ne daanaka daal xam doy na enquête ñu xam ne lépp loo na ci vaccin bii nga xam am na ci ñu bëri ñoo xam ne na ci li nga xam xel maanaam daal yenn ci ay ak waroo di ci gi di ñu xamal ne institut Madagascar si di ba fa nekk ci ay faux résultats yoo xam ne rek jot na koo génne l'observateur yéene kaay diñu xamal ne bu ñu génnu ci lii mbir yi dina gën a métti yéene kaay gi duñu xamal ne jamono ji nag am na ay ONG yoo xam ne rek ñoo nekkee ci àdduna bi ku ci mel ni PAM programme alimentaire mondial ak yeneen ONG yoo xam ne rek jamono ji ña ngay artu réewum moytuwul kay bëri na ay borom kër yoo xam ne xiif dina leen yoot maanaam ñaaw ami ñaaw ci Touba maanaam daal autopsie ba am na leneen loo xam ne rek jot na koo génne leneen loola weesuwul lu may xale yooyu nga xam ne jot nañ leen a faat am na ci lenn ci seeni cër yoo xam ne dañu koo dagg yóbbu.